maanaam saafara la ñu bëggoon waaye nag jàngoro la mujjee jura ndax ab jàppante bu metti moo am ci seen biir ñi nga xam ne ay pro Abdoulaye Diouf Sarr lañu ak ñi nga xam ne ay pro Amadou Ba lañu ñoo fa doon jàppante maanaam xeex fa xeex bu métte métte saagante yoo xam ne maara day taale journal bi nee na saisi di jóg amul kenn koo xam ne mujjee naa mën a ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi genn wet gi di yuuxu naan Amadou Ba gi si des di yuuxu naan Abdoulaye bi di réew mi quotidien ma fan la nekk waaye bay bu mu ñëw këram gi yéen ñu xibaar naan ñu Amadou Ba démb mujjuta wax dañu ko da de parole ba mu demee bay jël kàddu la gaay yëkkati ay di ko yoxaloo ba Amadou Ba mujjuta wax Abdoulaye Diouf Sarr dafa yëkkati ay kàddu ne Ndakaaru ñaari candidat moom la am man ak Amadou Ba Amadou na ko génn ma ci ndax munoo wax ci sama tur ma waxal sama bopp waaye moom Amadou Ba moomee mujjuta wax yéen kaay gi di bés na Amadou dafa wax ne moom du candidat ci lenn na la siège APR bi démb sorewut ak arène nationale yéene kaay gi de la turbine xëy duñu xibaar ci xët mu njëkk nee na Macky mi waaye ñi nga xam ne ñooy ay farandoom jamono ji maanaam ñoo ngi guerre ndax Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba ñoom ñaar ñoo ngi guerre ngir nekk candidat journal bi nee na APR soo muy tuulee dana gën a ñàkk nag fi nga xam ne mooy Ndakaaru ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal journal bi de Les Échos na Moustapha Niass mi nga xam ne moom la Macky Sall santoona ngir nag mu déglul ko ñi nga xam ne bëgg nañoo nekk candidat ci biir APR Benno Bokk Yaakaar déglu na leen ba pare maanaam liggéey bi Moustapha Niass def na ko ba pare ndax déglu na Amadou Ba déglu na Aly Ngouille Ndiaye déglu na Mohamed Boun Abdallah Dionne déglu na Abdoulaye Diouf Sarr déglu na Abdoulaye Daouda Diallo na Lo ci biir journal bi nee na képp koo xam ne Macky Sall tànn na la ngir nga nekk candidat Benno Bokk Yaakaar loolee rek doyu la ndax il faut nga jéem a convaincre ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar ngir nag ñu mën laa la yéen kaay gi di leen foo nee na li nga xam ne mooy dëgg gi mooy Amadou Ba Sénégalais yi bëgg nañu ko waaye nag ñi nga xam ne ay fokon lañ ay jaxasekat yàqkat yi nga xam ne ñoo nekk APR ñoo ko bëggul yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naan ñu plateforme F24 ñoom nag li ñu bëgg mooy élection yoo xam ne élection yu jaar yoon lay doon élection yu leer élection yoo xam ne ñi si war a bokk ñëpp ñoo ciy bokk waa F24 leneen li nga xam ne jamono ji ñoo ngi koy sàkko mboolem ñi nga xam ne ay détenu politique lañu ñu daal leen di libéré loole moo tax plateforme bi ñoom nag woote nañu ab rassemblement ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal ca place de l'Obélisque yéene kaay gi de Les Échos nee yi nga xam ne ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar ak ci opposition bi ñoom ñëpp nag sàkku nañu ñaan nañu ngir na Birame Souleye Diop seenum naataango ñu daal di koy libéré yéen kaay gii di bés bi maître El Hadj Diouf nee na candidat la ci élection di Le xëy nag dellu si waate ci li nga xam ne démb xewoon na ci siège APR bi journal bi nee na pro Abdoulaye Diouf Sarr yi ak pro Amadou Ba yi ñoo yàq siège APR journal bi nee na biir APR mbañante ga maanaam fu ko waaye natt passé na ko journal gii de la sax xëy duñu xibaar naan ñu Abdoulaye ji am na ñoo xam ne ñoo ngi koy teel tànk ci diwaanu Ziguinchor xam ne ñoom nee nañu ànd nañu Abdoulaye Daouda Diallo nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ba tey ci biir journal bi de la sa na Amadou Ba tey jii la gën tey jii la gën a déterminé woo la témoin xëy di ñu xibaar naan ñu assemblée générale bi nga xam ne juróomi département yi nekk ci Ndakaaru ñoo ko bëggoon a amal ci ak pëccaxoo la jeexee yéen kaay gii di Direct News xëy fësal ci xëta mu njëkk na par A ou par B Amadou Ba s'impose journal bii di Vox Populi nee na waxante dëgg Amadou Ba jamono ji mooy meilleur profil ci langue politique gi journal bi nee na Amadou Ba nekk na directeur général impôt domaine dafa liggéey bu mucc ayib nekk ministre du commerce nekk ministre de l' économie des finances et du plan ñu dénk ko ministère bi ñu dénk wàllum affaires étrangères ñu jógee fa jël ko def ko premier ministre bu Sénégal parcours la boo xam ne parcours homme d'état la am na vision am na engagement ba pare am na détermination boo xam ne war naa a lijjanti jafe yi nga xam ne moo am ci réew mi ba tey ci biir journal choix idéal bi nga xam ne mën naa gagné élection présidentielle 2024 ndax am na réputation bu baax ba pare grand serviteur de l'état la yéen kay gi de la témoin nee na ñi nga xam ne ñoo ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr ñee la ñu tuumal ne ñoo saboté mbir ma ndax surnal bi nee na ñi nga xam ne ñoo ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr nee na ñu ñoo saboté bi Amadou Ba di jël kàddu gi yéen kay gi de Le Quotidien nee na Mohamed Boun Abdallah Dionne mooy candidat de consensus ndax cadre yi nga xam ne ñoo nekk ci Benno ak ci ñoom nangu nañoo ànd ci ginnaaw Mohamed Boun Abdallah Dionne Abdoulaye Daouda Diallo jamono ji waxul dara ci Amadou Ba te ba pare nangu na ànd ak Mohamed Boun Abdallah Dionne journal bi nee na APR Dakar ñoom dañu rejeté Amadou Ba yéen kaay gi di alerte xëy ñu xibaar nañu fukk ak benneelu salon national bi nga xam ne doon ñu ko def ci lu jëm ci wàllum art visuel Amadou Ba premier ministre bi daan nay sant ministère yi bu ñuy décorer ñu décorer ak tableau yi nga xam ne ay artistes sénégalais ñoo ko defara yéen kaay gi di réew mi ko di jee xëy duñuy ñu ko ci tribunalum Dakar ci lu jëm ci wàllum escroquerie visa toll ci juróom benn weeri kaso yoo xam ne du ko tëdd yéenekaay gi de La Tribune wax ci lu jëm ci wàllum création pôle financier ngir nag xeex lu jëm ci wàllum délinquance financière journal bi xëy di laajte yu kër yi ak dossier yu Cour des comptes yéenekaay gi di enquête nee na rapportu fonds covid 19 bi maanaam xaalisu covid 19 bi enquête bi nga xam ne dénkoon nañu ko dikk maanaam ginnaaw juróomi weer ñoom bukkale nañu bépp dossier boo xam ne joxoon nañu leen ko yéenekaay gi de L'Observateur nee na ci diwaanu Touba ab dal moo fa daanu am ne ñoo fa ñàkk seen bakkana yéenekaay gi di Source A